Ndiaye ak Mamadou Mouhamed Ndiaye jërë ngeen jëf président de la république Macky Sall tey la fas yéene mais bu wogo wàcc ci ndox mi journal Le moo ko bind ba bindal ñu dama nga jëm Kër Massar ngir xool yi ak ji askan wi waame gi démb la ko xam ne ca ndajam conseil des ministres Le tegal ñu ci ne ca ndajam conseil des ministres ba sàkku na fa programme spécial d'assainissement ngir Kër Massar Soleil national xibaar boobee la ci jëmbat te ju mag te gaaw ci ci diiwaan yu ci mel ne Sokone Kaolack Ziguinchor Jiwaalo Palmarin Kees ak Ndar ñetti milliards yi état bi génne woon ngir taxawu ci askan wi loru ci inondation yi kaay bi nee nañu tàmbali nañu koo séddale démb ca Kër ma Massar journal enquête bi ne ne président Macky Sall mi seleng lu woon ci ndox mi jël na dogalub tooy ci xépp nee na dafay dem ci barab yi tàcc dëkk bi ngir xooli askan wi ci biir ndox mi lise ko mottali wax ba wax ñu ne tey ji ci yor yor gi maanaam dix heures suba gi lay dem Kër Massar la seen kay ne ko mi ngi jëm fu bari ay ñol-ñol terrain mii ne fa la fas yéene am na délégation bu bàyyeekoon ca palais ba wàccoon Kër Massar ngir demoon xoolali président Macky Sall la ko fay xaar bu fa wàccee les économies liy xaar président Macky Sall ca Kër Massar weesuwul askan wuy dund ci guuta ak coona ne kër yi Kër Massar yi kër yu ca bari ñoo ngi ci ndox mi ba léegi bitig yu bari yu fa nekk seeni borom tëj ni ñu leen bu yàgg dundu ga lu ca bari ak njëgam yokk na ne lu ci mel ni mburu mi nga xam ne kilo bi mi ngi doon jar fanweer léegi ma nga ci ñeent fukki dërëm askan wi nekk ci biir ndox mi ku ca bëgg a traversé téeméer bu tojul dërëm ngay fay borom gaal gi ngir mën a traversé bu dee nag ay mëbal nga yor ñeenti téeméer ngay fay ngir ñu jàllale la ko ba tey lu soxal inondation ngi ñuy informé ne Macky Sall amul a dellu ci seeni soxla fast track la bëgg ñu demee ko ci ngàcc gi l'observateur nañu député ya ci assemblée nationale te bokk ci groupe parlementaire liberté démocratie mere nañu ko lool moom Macky ne dañoo sàkk woon ñu woolu ci assemblée nationale ministre yi doon liggéey ci mbiri inondation yi ngir ñu leeral ana nan yore yëf yi waaye cib communiqué bu ñu def ca la ñu xam lee seen proposition boobee dañu ko rejeté lettre bi nañu moo taxit coow laa nga ne cobbay ci assemblée nationale te ki ñu ci gën a joxar bi baaraamub tuuma nag moo di njiital assemblée nationale di Moustapha Niasse naru ta sedd nag ndax journal La Tribune mi ngi ñuy wax ne député libéraux yi ci ñàkkante ka lu ñu jëm forcé assemblée nationale mu jëfe waru garam loolee bëgg te ku leen ko bëgg a tere na xam ne bàkk nga njaag waa njaageen di Lamine Njaag doom ja Pape Massata bu ñu bàkkul njaag it ngi leen di bëgg a bàkk ci ci kaw Lamine Diack ba daan ko ñeenti ati kaso yoo xam ne ñaar yi lay tëdd alamaan ko it cinq cent mille euros enquête dina kay nañu doom jayit di Pape Massata Diack daan nañu ko juróomi ati yoo xam ne lépp lay tëdd jëlub mandat d'arrêt international gàll ci ndoddam ak alamaan ju toll ci benn million yi euro mu di verdict bopp enquête dina kay jàpp na ne du yoon te it du jëfi nit source nañu àllarbay démb ji àllarba la ju xajam lool ci waa Njaageen 32e chambre tribunal correctionnel na leen ay ati kaso alamaan leen benn milliard atte baak layoo na mu tëddee journal Libération xëy lépp ci xëtamu njëkk ba wax ñu li ci zizi wax ak daan yi ñu gàll ci ndoddal Lamine Diack Pape Massata Diack maître Habib Cissé ak Gabriel doole latit bi nañu bàyyi ba ñaari ati doom ja juróomi ati kaso waaye waa Njaageen nee nañu ànduñu ci verdict bi ba tax dañuy def appel l'observateur nañu appel boobee ñu def moo leen teree dem kaso